ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm di wax ne dañuy wéy rek di leen toppal tànki sëriñ bi ci diggante ñaari dëkk yooyu ñu leen waxoon di Mbàkke Bawol ak Jurbel keroog ci waxtaanu mujj bi indiloon nañ leen dikkub sëñ bi ci xuru Mbàkke ak Touré Ndulo muy ñaari dëkk yu am taarix ci yoon wi tey nag yeneen ñaari dëkk yi leen indil mooy yi des ci yoon wi bala nga egg njaareem mooy ndulo ak saambe ndulo nag moo teg ci xuru mbàkke benn mbaa ñaari kilomètre moo dox seen digg jëm njaareem waaye saambe it boo demee bu jug njaareem lu mat fukki kilomètre euh, foofu la nekk ñaari dëkk yooyu nag lañ leen di waxtaanee tey ndulo nag bu ñu ko tuddee dañuy fàttaliku yoonu yoon wi nga xam ne ci la sëñ bu jóge ca yéen di ñëw njaareem sëriñ bi xam nga ne tubaab bi téye nañ ko lu mat juróomi at ci yéen googu ba juróomi at mate nag lañ lañ ko indi njaareem keroog ci yoon woowu nag la jaar woo nag la jaar kon bala ñu leen waxal ndula dañ leen di waxal dañ leen di fàttali yoon woowu yoonu ci bi sëriñ Tuubaa mi ngi jógee ci yéen gannaaw ba mu fa defee juróomi at ci njëlug 13 janvier 1912 fukki fan ak ñett ci janvier 1912 yemook Euh, ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tamxarit ci lasas lasas mooy 1330 sëriñ baa ngi fa jóge ci njël wax nañ ne sax dox na tuuti door a julli suba ànd ak mbooloo mu takku nag di juróom fukki nit ak ñaar sëriñ Mbàkke bu jiite leen waaye ànd ak soldaar yi nga xam ne bu Bouna Alboury njaay mi nga xamoon moo doon chef de canton Jolof ñoo ko escorté woon indi ko njaareem bu Bunu Alburi nag dafa jotoon digal ci tubaab yi mu indi sëriñ bi ba teg ko ci loxol sëriñ Moodu saw Moodu saw mi nga xam ne moo doon chef de canton kon mbooloo moom ak escorte boobu ñoo bàyyi ko keroog ci suba teel googu ci yéen ñëw jaareem dëkk bi nga xam ne ci la ñu jëkk a taxaw mooy Beljeski ci Jolof eh, foofu sëriñ bi amoon na fi ab taalibe bu ñu wax sëriñ Jaaja Ndaw te moom la yendoo gonte fa nag ñëw fanaan si welu mbel welu mbel it beneen dëkk la bu nekk ci jolof boo xam ne beneen taalibe ñox alaraj fariga moo ko fa dalal ba mu fa fanaanee nag ba ma xëyee ci suba la ñëw yendu si kàddu baloo ji kàddu baloo ji nag moo doon frontière u jolof ak bawol kon foofu la escorte Bouna Alboury bi ñibbee jolof jox lengo yi nag escorte du Sow mi nga xam ne moo doon chef de chef de canton wu euh, Bawol ci diggante boobu ñee ngi wax welumbel ñii di wax kaddu balu ji fi la sëriñ bi waxee waxam juróoy jooju ne raamoo masiri illaa jurbel la daal lasas la oyenoo sërra maa fi sëri maa raamoo ñoom de tubaab bi ñu ngi sàkku sama dox jëmale ma jurbel ci atum lasas waaye buñ xamoon la ma fay amee la may amee njaareem maa raamoo duñ ko suñ ma fa yóbbu waxam ju siiw jooju ca rëy foofu la ko sëriñ bi waxee kon sëriñ bi mu yëndoo kaddu balloo ji dafa gonte ñoo fanaan si daaru alimul xabiir kër sëriñ daam abdourahman Lo fanaan fa ñaareelu guddi gi xëy mu 15 janvier mu daal di yendu si ndulo euh, ndulo googu it lu tax mu yendu fa sëñ Maodo Sow mi nga xam ne moo doon de canton moo ko sàkk woon ci moom ne ko muñ demee bu ndulo maa ngi sàkku nga yendu sil fa moo tax fa la jullee tisbaar jullee fa takkusaan loolu dëgmal nag njaareem njaareem wax nañ ne mi ngi fa yegg si ci juróomi waxtu ñu teg fanweeri minute waaye bi mu ñëwee ba jub dëkk bi rek commandant Diourbel dafa yónni ay ay soldaar ñu ñëw gàttandu ko ànd ak moom yóbbu ko ci kër commandant ma fa la fanaan guddi gu njëkkam ci njaareem kon 15 janvier 1912 fukki fan juróom ci 1912 yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci tamxarit ci lasas ci la sëñ bi egg si njaareem guddeeg bu njëkk mooy guddi 16 janvier di guddik ñaar fukki fan ak juróom-benn ci tamxarit googu euh, sëriñ bi nag toog na njaareem fukki at ak juróom mbaa mu ëpp ko tuuti. nga xam ne dem na ba te ca catul nekk njaareem ga ba nga xam ne surveillance si tubaab bi xaw naa wàññeeku maanaam surveillance si tubaab bi surveillance bi ñu ko doon surveillance xaw nañ koo wàññi xaw nañ koo yolomal sëriñ bi nag daana jóge euh, njaareem di ñëw ba sàmbi di fa doxantu kon ñëwug sàmbi gi sëriñ bi njaareem la doon jóge dafa ñëw def na ko nag lu bari moo tax saam bari na ay barab yoo xam ne sëriñ ba julli na fa bokk na ci fii ñuy tabax di kër sëñ Touba bi nga xam ne boo ñëwee duggee sàmb jëm Touba moom ngay jot ci sa càmmoñ sëriñ foofu barabu julli sëriñ bi la boo yokkee tuuti rek jëm ci école bi ci foofu ci miiru école bi rek daqaar ga fa nekk wax nañ ne sëriñ bi euh, toog na fa wéetal na fa suñu borom waaye gànnaawu dëkk bi it gànnaaru Sambe am na ñaari yeneen ñaari barab ci gox yooyu ñuy wax Sambe Ngent ak Sambe euh, ñaaxeen sëriñ ba daana fa julli daana fa wéetal borom barab yooyu yëpp nag waa Sambe daayira mburutu Sambe bi nga xam ne sëriñ Bassirou Sambe Sambe moo leen jiital ñu ngi taxaw ci yeesal barab yooyu ba mu gën a jëmm ba mu gën a màndargawu ñu ngi leen si ñaanal ndam waaye di sàkku nag képp koo xam ne mën nga ci mën nga leen cee jàppale nga def ko ngir yàlla ngir sëñ Tuubaa kon ñaari dëkk yaa ngoog Saambe ak Ndulo moom lañu indil tey di ñaari dëkk yu am solo lamba bërëb yu bari yoo xam ne sëriñ Tuubaa julli na fa yéemu wéetal fa borom waxtaan bi nga xam ne mooy mujj nag danañ leen dëggal dugal biir njaareem njaareem nag sëñ bi yàgg na fa kon bëri na barab yoo xam ne euh, yi dëkk na fa yii jaamu na fa yàlla yii wéetal na fa boromam ci yooyu dëkk incha allah moom la ñu defal waxtaan wi ci wi ci tegu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala maahin mal absa wa safar salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala maahin mal absa wa safar